lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. salaamualeykum ñu ngi waat ñëpp di jaar ñëpp di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla mu def ko ci àdduna bépp di leen baalu ak encore une fois ci weeru koor gi di leen baal àq tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di remercier encore une fois ñëpp ñi nga xam te ni ñu ngi topp suñu vidéo ñu ngi gis message yi di gis encouragement et tout di dellu encore une fois di tuub bu baax a baax ci yeex a tontu gi ñuy tontu message ngeen comprendre ñu rek xam ni liggéey bi. des fois moom moo ñuy ak message yi tamit day bëri loolu moo waral des fois ñuy yéex a tontu ñu ngi ciy tuub bu baax a baax tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo bu ñuy def tey nag vidéo bi ñuy def nii dafa doon loo xamante ni si benn internet moo ko sàkk ci ñun mu doon benn situation boo xamante ni ku nekkul di ko dund aussi tamit yaa ngi koy dégg muy le fait ñuy yokk glace ci weeru koor gi mu doon loo xamante ni si daal bari na coow. ñi naan yoon la ñi naan du yoon donc ñu bàyyi leen ngeen déglu ojo bi nga xamante ni si moom la mbokk mi def ñu ñëwaat continuer waxtaan wi. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala euh, lu xew TV maa ngi di jaar yéen yëpp di leen di jox seen wàccuwaay te di leen di baal àq te di leen di baal àq si weeru koor gi. di ñaan yàlla suñu borom tàmbalee nañ ko si bisimilah rahmaani rahim yàlla nañ ko jaxale sa alhamdulilah rabbil alamin te fekkee koy déwén yi bëri bare bëri bëri yàlla yokk xewal yi yokk wërgu yaram yi yokk xam-xam yi yokk te si liggéey yi yokk si bépp fànn boo xam ne doomu aadama mu ngi siy yëngatu. te di ñaan aussi tamit lu xew TV aussi yal na leen yàlla defal jàmm eh, yal na yàlla def jàmm si xol yi jàmm si kër yi jàmm si sëy yi jàmm si bërëb liggéeykaay yi eh, vraiment man eh, dama leen di jox benn information bu nekk au niveau de Kédougou weeru koor bi fii Kédougou tàng na trop et problème bi. aussi moo di problème glace parce que boo seetee biir Kédougou ville femme yaa ngi jëndee glace deux cent francs ñu yóbbu ko si environnement bi environ kii dëkk dëkk yi village yi nekk si environnement bi environnement bi environnement bi mooy village environnement yi ñu ngi koy jaayee cinq cent francs am na côté yooyu dem sañu koy jaay mille francs mais c'est catastrophique parce que man dama defe ne weeru koor weer yérmande la ñu ut si yàlla yàlla jëgal ñu suñu bakkaar yi ñu ñaan si yàlla suñu soxla mais weer boobu boo si dimbaliwul doomu aadama waroo ko si sonal j'ai constaté que même au niveau Sénégal sax national sa Sénégal weer koor bu jotee yu bëri day yokk ngir lan. xanaa nit ñi seetatuñu yàlla xanaa nekkatul wéeru yërmande yàlla daf koo def wéeru yërmande mais nit ñi def ko weeru toroxal su suñ suñu morom suñu suñu mbokku jullit ndax tey fu ngay jëndee glace deux cent jaay ko trois cent ñuy jaay deux cent sax bu weeru koor bu jotul ñu ngi jaayee glace soixante quinze ba cent franc weeru koor bu ñu nga yokk galaas vraiment moi je voudrais que aussi eh, ñu waxtaan si. Euh, bu ngeen amee xel bu ngeen si dolli nit ñi ngeen dolli ko si vraiment euh, maa ngi di gërëm di leen di sant wasalaam. donc gannaaw ba ngeen dégloo li nga xamante ni si moom la wax képp ku ci am xalaat tamit mën nga ñu ko envoyé par message vocal ci suñu numéro whatsapp moo nekk noon di affiché donc ñun d'abord suñu xalaat ah ñun de jàpp nañ ëpp na trop. glace buy jar soixante quinze fukk ak juróom wala cent franc nga dem ba di ko jaayee mille franc wala cinq cent pour man na. te li ko waral mooy lan parce que nit ñi dañoo nekk ci koor bu ñu dogee dinañ soxla glace ma yaakaar ni tey nit bu ñu demee ba dugg ci weeru dool ni weeru koor ak li ci suñu borom def lépp ci ngëneel ñu naan weeru promotion la nga war wartee mën a njëkkante jaamu ci yàlla le maximum possible yow defoo dara lu dul jël glace bi nga doon jaayee cent franc wala soixante quinze nga di ko jaayee téeméer wala mille franc tey xam nga nit ki dafa wóor et bu dogee dina yittewoo glace. looloo waral nga yokk glace bi ngeen jàpp ni loolu nekkul chantage te nit ki mu woor mu leen la bu ndogee dina yittewoo glace moo waral nga yokk prix glace xam ne moom dina ko soxla donc loo ko mën di jaayee dina ko jënd parce que dina yittewoo glace ndax tamit tàngaay bi boo wooree ba ngoon boo naanul glace des fois day xaw a doy waar trop léegi nag loolu noonu moom ngeen jàpp ni nekkul chantage ah am na nag ñoo xamante ni si nee nañ diggante njënd ak amul baakaar. parce que boo nee nit ki temps lay jaayee moom bu ko jaaralee mu jënd ko problème amu ci mais xool leen circonstance yi c'est parce que dañoo woor dinañ soxla grâce moo tax nga yokk prix bi loolu ndax mel ni am na lu tuuti lu ah. donc loolu dina xaw a compliqué daal ah ñi ngi sàkku tamit ci ñi nga xamante ni seen xam-xam yegg na foofu maanaam jàng nañ ci ku mel ni oustaz wala koo xamante ni si jàng na xam-xam ci côté boobu noonu boo ñu ci mënee leeral tamit ñu jël mais en tout cas man sama xalaat bu gàtt. wax dëgg même bu dee dagan na tamit ñaaw na ñaaw na lool parce que dama jàpp ni tey nit ki nga xamante ni si nii woor na ba ngoon boo jëloon mbuusu glace may ko mu naan xolam sedd njabootam naan seen xol sedd yiw woow noonu bu la ko suñu borom fayee moo gën li nga ci mën a am xaalis te d'habitude ñi nga xam te ne dañuy profité ci événement yi di yokk marchandise wala genre li ma ci gis te man la plupart du temps du leen jariñ dara parce que loolu noonu après xaalis bi day mel ni day seey si sa loxo kon man ci sama xalaat bu gàtt tey bu ñu duggee ci lu mel ni weeru koor nit ñi dañ ci war a mën a profité gën ci jaamu yàlla tey glace bi nga doon jaayee soixante quinze boo ko wàññi woon sax def ko fukki dërëm du la yàqal dara ndax li ñuy wax rek wërsëg du maxe wërsëg du maxe mukk nit ki li nga war a am ci kaw suuf ala kulli alin bala ngay génn àdduna di nga ci jot kon lan moo jar yàkkamti tey ki nga xamante ni si même bu wóorut moom même bu dee temps normal amul cent franc yu mu jëndee glace nañu xalaat ni tamit am na ñoo xamante ne ñi ngi à côté seen doole dafa néew donc même ki nga xamante ni si nii bu wóorul mënut a jënd glace bu cent franc mu woor ba ngoon bëgg a ndogu nga di jaayee glace mille franc fan la koy jëlee koo xamante ni amul lu mu ndogoo fan lay jëlee glace bu mu naan nañ bàyyi xel ci ñooñu nga xamante ni au moins tey bu ñu leen mënta may tamit ñu jaay leen ko lu ndaw wala ñu jaay leen ko li nga xam ne moo leen ko doon jaay dans ce cas au moins dina jël glace yokk wala jël glace yokk ko ba téeméer. amoon na avis personnel c'est trop te loolu du ci cadre koor bi rek dañuy jël exemple ci lu ci mel ni màggalu Tuuba wala lu ci mel ni tey jii gàmm boo demee Tiwaawan donc yeneen dëkk yi déw ma fa ay gàmm événement xawma lu fa xew mais ñaari dëkk yi ma lim moom dem naa ci événement tey jii nii boo demee lu ci mel ni màggalu Tuuba paas diggante bu ñu doon def cent franc ñu yokk ko ba deux cent diggante bu ñu doon def juróom wala yooyu noonu ñu yokk même Tiwaawan aussi même chose te dama jàpp ni bis yu mel noonu événement yu mel noonu nga xam te si nii dafa doon loo xam te nit ki def ci war a profité jaamu ci yàlla le maximum possible parce que ñi koy defal ndaw te ñi nga xam te ni ñoom lañ koy defal seen bis loo ci def dinañ la fay ba wis la kon nañ defaraat philosophie yi defaraat xel xam ne tey loolu nga xam ni moom la ñuy profité ci événement yi loo xamante ni si dina la jariñ fale ëllëg ndax alal la te fii lay yàpp li la mën a jariñ kay mooy nga profitoo ci def ci lu baax jéem ci jàppale doomu aadama yi nga xam ne boo demee ëllëg si kanamu borom bi jëf ju baax jooj noonu dina la layal mais nit ñi bu ñu nekkee fii nii au lieu ñu jéem a defar suñu compte ëllëg yow ma la mal am mais compte àdduna bi rek la ñuy jéem a defar te àdduna bi lépp loo fi am te nekkul jëf ju baax fi nga koy bàyyi alal du la topp kon bu ñu xalaatee loolu rek dinañ jéem a jaam suñu borom ci benn côté bi mais bu événement ñëwee wala weeru koor ñëw ñu bëgg a yokk glace bëgg a yokk lépp loo xamante ni si nit da koy soxla ah wax dëgg fa yàlla man day ci sama xalaat bu gàtt rafetlu ma ko même bu dee dagan na tamit ñaanal lool ñu ngi tuub nag di jégal bu baax képp koo xamante ni wax ji laal na la ah ñu ngi jégalu de. xam ni tey dañu jógoon rek pour lancer message boobu pour képp koo xam tamit yaa ngi koy def boo ñu déggee nga bàyyi xel bu baax a baax ci li ñu wax te nga bàyyi xel bu baax a baax ci ñeneen ñi li ñuy wax tamit parce dafa doon loo xamante ni si ni les avis sont partagés kenn ku ne ak sa xalaat mais man ci sama xalaat bu gàtt rafetlu ma ko ñu ngi tuubaat encore une fois di jégalu bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah di ñaanal ñëpp ñu àggale koor gi ci jàmm ak salaam.